asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki daara ji maa ngi leen di ziara ñu taxaw tuuti ci lii xew Kaolack jëmm jooju faatu te fitnaal ay mbokkam fitnaal boppam fitnaal réew mi mooy kooku ñu lakk guddi te wax ne boroom ñaari tur yi la woon maanaam dadaa jëf jëf yi nitu yonentu yàlla luut alayhi salaam wax nañ it ne da ko daan fésal da ko daan feeñal ci aw melokaanam ba ñoo ko xamoon ñëpp xamee ko loolu Sénégal nag li ñuy tuddee boroom ñaari tur yi day mel ni ay ngir la yu wuute am na ku yàlla bind mu doon góor waaye moom mooy niru niru lu jigéen ci colinam ak comportement ba ku ko gis ne góor jigéen a ngi mën naa am mu boole ca di jëf jëf jëfi nitu yonent yàlla luut ya wala boolewu ko ca wallahu aalam lii ñu wax nag doonte baaxul mooy góor guy niru lu jigéen ci jëf jëfinam ak waxinam ak doxinam ak colinam wala safaan ba jigéen juy niru lu góor ci anam yooyu loolu baaxul ci bàkkaar yu mag yi la bokk yàlla rëbb ñu koy def waaye la gën a bon gën a yées mooy kii jëf-jëfi nitu lóot loolu nag bala ko kenn waxal kenn dafa ajoo ay firnde wala ka koy def feeñal ak caay-caayam nangul ko boppam seede ko ci boppam jëf ji nag nga xam ne aji faatu ji fitnaal na ay mbokkam ngir lan wax nañ ne ñoom teel na ñoo xam ne kii denc ko du yomb moo tax bëggoon nañ ko denc ca biir kër ga biir këram fa mu dëkkoon waa koñ ba bañ ne kenn du ko fi suul yóbbu nañ ko tuubaa ñu delloo leen génne leen dëkk ba ànd ak ñoom bañ génn ba sori ci biir kaolak dem nañ ci ay dencukaay lu mel kër kanda ñu bañ ne kenn du ko fi denc ñu xaar ba ngoon gu cate jege guddi lool ñett ci ay mbokkam dem foofu ca lew na denc ko denc bu doy waar wax nañ ne nañ ko dencee waajaluñ ko comme ni ñuy waajalee jullit lu aju ci càngaayaat kër gañ ko dëkkal sax du kër gu baax maanaam gasaluñ ko bàmmeel comme ni gas gasee bàmmeelu nit wàqi nañ tuuti teg ko jël suuf ci kawam nga xam ne buñ ko bawoon noonu sax bu yaram ba soppi ko dana sonal ña dëkk lol lool lool gaawtoo ko lool daw dem waaye nit ñi yëg nañ ko ñëw jëlee ko foofu takk ko ci ay buum diri ba fa leen soob ñu sotti essence wala gasoil wala pétrole yàllaa xam taal ko mu takk jëppet ak la ma àndal ci ay panneau comme ni ngeen ko gisee ni ngeen ko déggee kon moom day fitnaal na ay mbokkam coono bii mu leen yóbbee bañ ko bëggee denc waaye fitnaal na boppam it ci ni nit ñi jëflantee ak moom fitnaal na réew mi ci xew-xew bii xew bi te xel mësta xalaat ne lu ni mel dana xew li ci toppaat ci ay wax rawatina ànd ak loolu yëpp bu dee ab jullit la woon yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jéggal ab jullit bu faatoo ak fu caay-caay mën a yegg dafa am xaq ñu denc ko fa ñuy denc jullit ña am xaq ñu ñaanal ko njéggal ak yërmande yàlla am xaq ñu taxawoo ko ni ñuy taxawoo ab jullit sang ko sang ko jullee ko door ko jébbal boroomam loolu fardu kifaaya la fardu kifaaya la joo xam ne way dund yi ñoo ko yenul way dee yi ak lu mu saay saay saay saay nag ànd ak euh, Sénégal li ñuy tuddee borom ñaari tur dafa mel ni ay mbir la yu bokkul am na koo xam ne day jigéen jigéen lu ci melokaanam ci na muy soloog na melal boppam na muy waxeeg na muy doxeeg kooku ci Sénégal dañ naan kii borom ñaari tur la moo xam day jëf-jëfi luut wala jëfu ko ku melut noonu góor la di solu comme góor waaye day jëf jëf yi nitu yonent yàlla luutu alayhi salaam kooku it nit ñi dañ koy melal ne kii boroom ñaari turi la am na ñoo xam ne sax ku yàlla bindee mu am ñaari awra bu góor ak bu jigéen li ñuy tuddee xunsa dañ koy woowee borom ñaari tur yi bu dee kii nga xam nag moom bindin la kooku deful dara kee di ko niru nirulu ci ay waxinam ak definam ak colinam di góor la di jigéen jigéen lu wala safaan ba jigéen la di góor góorlu loolu ca bàkkaar yu mag yàlla bokk yàlla rëbb al mutashabihiina min ar rijaali bin nisaa wal mutashabihaati min an nisaai bir rijaal ci làmmiñu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon bàkkaar bu mag la yàlla rëbb nañu koy def rawatina nag la gën a bon gën a yéesati te mooy jëf ju suufe jooju doonte loolu moom bala ko kenn waxal kenn dafa waajoo ay seede yu dëgër yu ko saxal wala ka koy def saxal ko ci boppam waxal ko boppam nangul ko boppam jëf jii nag jëf la jëf ji nii nii nit ñi jëflanteeg moom doonte rafetul diine bëggewu ko nii àttee réew mi it gërëmut lii waaye jëf la joo xam ne dëgg-dëgg ab ab la ab yar la bu saf bu dal ci kaw mbooleem ñuy dund lu mel noonu dalit ci seen mbokk seeni mbokk ëllëg balaa ñuy génn àdduna ñu fitnaal leen ñañ man ci ñoom dara ñu teel a taxaw téye seen loxo jàjji leen waaye ku am xel ci ñoom daan def lu ni mel di ko feeñal bu ko bawul xanaa boog dana ko dana ko nëbbu moo tax léeg-léeg mbir xew doonte rafetul lu mënoon a ñàkk la waaye nag bind la bu rëy rëy yar la bu dal lool yemul ci kii mu dal waaye mboolem ñuy dund lu mel noonu ak mboolem ñuy défendre ñu e, di di taxawal ay mboolook di liggéey ci yu nu mel lii yar la bu saf jàjj la gu gu jéggi dayoo nit ñi ñoo doxa dox ba ñu bare bare mel ni xamutuñ fu ñu jëm di def lu kenn mësta xam caay caay googu di jëfu nitu yonent yàlla loot yàgg na ci àdduna comme ni ko xamee waaye lii xew nag ay nit de ñoom loolu la ñuy dund loolu la ñuy def yemuñ ca soppi seen bopp seen yaram yaramu jigéen te ay góor lañu ñu woon wala ay jigéen soppi seen bopp yaramu góor te ay jigéen lañu ñu woon boole koog di di di fesal loolu di ko feeñal bal di woote jëmee ca bëgg yàq ay nit ci loolu loolu caay-caay la gu bir gu jéggi dayo moo tax léeg-léeg yenn caay-caay yu xel mësta daj bu amee ay daan yu xel mësta daj it mooy ñëw rek fu daan yi bàyyee koo sax kenn du xam jàpp na ne lii du kenn programme kii bu faatoo nañ ko lakk wala nañ ko nangam waaye la koy yóbbee mu mel na mel dundu lim dund ba xëy faatu looloo jur rek nit ñi jëflanteeg moom ni ñu moom wala ayaatu billah wala kulli xaalin bu dee ab jullit la woon te ñu ngi yaakaar ne ab jullit na suñu borom jéggal ko yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla jéggal te yërëm ko waaye yàlla na yàlla waaree jàjjee ci moom mboolem ñi def lii mu doon def ci xabaar yi xaw ma wér wala wérut wax nañ sax ne woy juróom wu jigéen woy juróom wu jigéen wuy gën a boromam xëy na naqar gu gu ko not ci lii xew ci doomam ji wallaahu almustaan